salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Abdoulaye xuma nekk responsable politique alliance pour la république membre grande coalition présidentielle lii di Benno Bokk Yaakaar foofa ca Kaolack Abdoulaye Khouma ñoo ngi lay nuyu di la dalal fii ci Sénégal. maa ngi leen di fay yéen waa Sénégal rawatina sama xarit bi Kandé yow mi ma invité ci sa émission bi. di ko rafetlu di ci ànd ak mbégte di la uyu si di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñi ngi du ñu dàgg di suivre waa Sénégal 24 heures sur 24 ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. rapidement lan mooy sa histoire yow ak euh, parti président Macky Sall. man ak parti président Macky Sall suñu histoire yàgg na dañoo yàgg sa ànd bokk naa bokk naa si ñu créer parti bi bokk naa si ñu gëmoon ne. bu ñu créer suñu parti danañ mun a récupérer danañ mun a jël réew mi awale ko ci ay yoon yu leer ndax APR buñ ko doon créer boobu ñu ngi woon ñu doon créer dekkal ngor boobu maa ngi fa woon nekkoon Kaolack basé wu fa buñ paree dekkal ngor ñu dem créer APR te bu buñ créer APR ñun bokk nañ ci bokk naa ci jeunes yu ko njëkk gëm Kaolack ñu ko gën a ñu ko njëkk a xeexal te métti woon na trop. boobu waxuma sax xeex ko ak coalition Abdoulaye Wade mu yoroon nguur mais xeexoon ko ak ci biir bennoo siggi bennoo siggi Sénégal mu fa nekkoon dafa métti woon parce que fu ñu doon dem dañu doon jéem a ñàkkal fayda di ñu doon tuuti naan noonu yéen ay parti yu ndaw ne defee leen nii affaire bi dafa ma doon métti mais na dama gëmoon li ma gëmoon rek gëm ne lu ndaw amul fekk demoo élection gëm ne lu ndaw amul fekk waa Sénégal décidé wuñ yàlla def na bu 2012 jotee Sénégal décidé atte liñ daan xeeb a néew moo jëw jël tey réew bi di ko gouverner ni mu ko waxee ak nu mu soobee askanu Sénégal. Kaolack ku ko wax sa xel dem ci ñoom uh, Diène Farba Sarr dem ci Mariama Sarr ki nga xam ne moom moo nekk maire bi fu mu toll nii uh, mais uh, doon na région boo xam ne liñ fa gën a ràññee mooy féewaloo bu nekk diggante yéen ñi nga xam ne yéen a nekk foofu ci bennoo Bokk Yaakaar. mais est-ce que ci contexte bu ñu toll situation bu mel noonu arrangé na leen. bon Kande maa ngi rafetlu di kontante eh, kii bi nga ma invité question bi ma pose bon ñun ay ndaw lañ woon ci partie bi diggante 2012 ba élection 2014 oo nañ ma wax nañ man ban liste ngay bokk ma ne leen man damay xejal mag ñi ñu dem xam nga mbir gone boo nekkee ci biiru mag te xamagoo lu mag ñu mënee te mbir mi mbiru mag la xejal leen ñu dem. bu leen xajalee nag ànd ak ñoom jàppale leen ñu dem élection 2014 ñu gañe ñu puus leen ànd ak ñoom bu ñu demee ba nga xam ne ñii ñu puus ñii ñu ànd mënuñu dem te population bi ñu ngi dem ba bëgg a mere président Macky Sall ngir ñoom ñu ne ñun nag lii duñ ko seetaan parce que ñun ñoo fal suñu ñoo créer partie bi fal suñu président Macky Sall dañ koy aar te nit boo koy aar nag. nit boo koy aar sa kër ngay njëkkee Kaolack ñun amuñu problème ak les responsables coow li mooy de élection deux mille vingt deux yi ñu jëm c'est pour la jeunesse pour ndaw ñi la ginnaaw ñoom puus nañ leen demut mënuñu bouger kon dañoo war a able ñu essayer ñu sama diggante Diène Farba Sarr daara nekku ci. mais dafa fekk loo xam ne ne ñoom Macky sàll may na leen chance yu bëri mais Kaolack gisuñ seen bopp. Mariama Sa kazalika Modou Ndiaye Rahma kazalika keneen ak keneen ak keneen noonu la Maria Macky Sall limu mu mën ci région de Kaolack mi koy def parce que Macky dafa fonk région de Kaolack ci ci ci yu bëri. bu mu du nit boo demee fi nga jàngee ki dugal baas yi jàngee fa ba amee fa bac région de Kaolack la ko amee yàlla def na mu jiite réew kon nag am na fi mu def région de Kaolack moo tax musu leen a musu leen a seetaan ñu tardé li mu man ci jàppale mi ngi leen koy jàppale ñii jox na leen ay poste ñii jox na leen ay xaalis ñii jox na leen ay sànke ay marché ñuy gagné pour ñu mën a dimbale région de Kaolack mais ku nekk ki mu ko mënta def. yow daxa intéressé la lu mooy sa bopp daxa intéressé wala lu mooy say suuf daxa intéressé wala lu mooy lu jëm sa kër bañ na ko ba kenn si ñoom koo xam ne ne njabootam mi ngi Kaolack amut ñoom ñëpp seen njaboot mu ngi Dakar ñii seeni jabar ak seen i doom Dakar la ñu basé wu ñii seen jëkkër Dakar ñu basé wu ñii seen lépp Dakar lañ basé wu ñoom cundum ñooy ñëw 15 jours ou bien un mois dafa perte bâchon jaxas indi Kaolack indi coono indi ñu coono yu du jeex dem bu ko defee ñun ñu nga xam ne ne suñuy jabar su ñuy doom su ñuy am di jàmm suñuy nijaay suñuy lépp a ñuy Kaolack di dégg lu leen naqari ngir ñan ngir ñooñu loolu dafay jeex Kaolack looloo tax par la voie ma ne leen élection locale 2004 2023 yii par la voie de Sénégal tey dinaa leen wax moo tax ma ne man na dootuma ko seetaan d'accord je crée man. dafa am loo xam ne ne yow yaa koy may sa bopp am loo xam ne ne nag président Macky Sall moo la koy may parce que il est le président de tous les Sénégalais. maire euh, déjà milité. naa ne déggal nga président de la République bu demoon kon ba désigner kenn ci biir Kaolack. comme ni ñu koy yaakaaree ne Mariama Sarr defe naa moo fa moom la fa président de la république jiital man moo nekk maire ak ministre est-ce que di nga rangé wu wala. da ngay gis nga candidat président musutal désigner un maire dans une commune loolu c'est des ay mercenaires yu nekk palais. di manipuler di encaisser ay dix millions yi ay leaders responsables yu nekk dans les leur département ou bien dans leur commune ñooñu toog palais si bureau palais si numéro huit cent di ca oote di naan président nee na président nee na président nee na président nee na man lu leer laay wax fii ci Sénégal lu may tax arrière ci sama décision bii ma jël président sama nopp gémmiñu président sama nopp mu wax mais ay président nee na wala président nee na duggatuma ci parce que 2014 nii la ñu manipuler woon askanu Kaolack ba dugal guuta Kaolack guuta gii mu nekk tey jii. Hmm. kawlax nag am na xol bu métti xol bu amee góom munuñ koo faj mais xëj na danañ ko faj ci le 23 le 22 juin 2022 danañ ko faj. Hmm. maanaam yow boo déggul ne président wax ne maa jiital diw doo rangé wu ci. ginnaaw du wu ci benn parce que amatul responsable Kaolack. ku nekk nag bu la neexee jël say maire may la may ko xaali mu taxaw na téye le responsable départemental kii ne yaay suñu mandataire kii ne yaay suñu lële ñun loolu yow la concerne ak li leen di jox say ceebu kilo nit ñi ñi ngi joxe lu ne ci àddina te owuñu télé owuñu rajo. Mhm. lu ñuy def yàlla moo tax ñu koy def. Mhm. fii APR amul responsable dans. toutes les départements na waxuma Kaolack rek de amul benn leader mu ñemee toog département département am dans les quarante cinq départements du pays mu ne ma je suis responsable départemental amut ndax parti bi demagut congrès hmm. parti bi décidé wuñ kenn Macky nag moo moom am moo ay nomination am ku neex na mun na la nommer def la ministre ku neex mun na la def directeur général. mais am na loo xam ne. Mhm. Macky munu koo def doomi aadama yow yaa ko mën a def sa bopp. Mhm. parce que parti bu doon dañoo dem congrès. congrès bi yëpp décidé ne diw yaay suñu responsable kon boobaa man dootoo dégg ma wax ci rajo te jotuma ndigalu responsable bi. Mhm. dootoo dégg ma kaas te jotuma ndigalu responsable ginnaaw léegi ji ji koy armée mexicain la ñu yore ñun ñu ñun ñëpp ñu sommes des caporaux. ñun ñëpp ñu sommes des généraux kon nag personne ne peut pas ne pas commander un. Mhm. man kenn mënu ma commander. kandidaa mhm. la je dirige une coalition qui s'appelle Doomi Kaolack. ah <laughs> yow jiitu nga gars yi de kon. Doomi Kaolack Doomi Kaolack yëpp laa waxal ñëpp laa oo xooluma société civile xooluma kii Sonko la àndal. xooluma kii Ablaye Wade la àndal xooluma kii mboolem kuy doomi Kaolack. pare defar Kaolack. pare ñu liggéey tàllal naa la sama loxo nga ñëw ñu bokk ñu liggéey parce que dara ñoruñu lu mooy Kaolack. Euh, Kande ma évalué leen man xeexuma maire pour xaalis xeexuma maire pour salaire wala xeexuma maire pour poste man dama xeex mairie bi pour mën a defar Kaolack. Hmm. te bés bu ma gagné woon mairie bi tey jël ko te dinaa ko jël soxlawu ma oto mairie soxlawu ma salaire mairie lu ñuy am ak li ma fay mën a am yëpp dama koy delloo delloowaat si askanu Kaolack bi. est-ce loolu wax yi neex la rek pour bëgg a falu. bu déggoo li ma bu doon te ne wax lu ma neex la ma toog li ma yor sa néew mun naa cee dundu mais nag du ma nangu mukk ne diw politikoon na fi wala diw nekkoon na fi àndoon na Macky xoolal nu kaw la mel mënut a changer déedéet du ko def. Mhm. parce que li ma man mooy xeex dinaa xeex na déjà man maa ngi liggéey te nekkuma meex am na lu may def Kaolack te nekkuma meex bu ma nekkee meex am na loo xam ne bu ma ko bëggee def mairie koñe ma wala keneen koñe ma. Mhm. mais ju ma ko def loolu dong moo tax. est-ce que yéen seen division ci biir Kaolack doo leen may opportunité opposition bi mu man leen gagner ba récupérer la mairie de Kaolack. si division baaxul sax si kër. rawatina ci parti rawatina ci mouvement présidentiel. Mhm. léegi nag njiitum réew mi du président Macky bu seetaanee ba ñii ma dégg ñëpp candidat ñu def ko kandidaa benn tokaar mooy jógee koo feeku kenn foogut mu ñëw gañ a toog. Mhm. def lu ko neex. mag ñi nañ puus. abal ndaw ñi na ko président dëggal. investir ñu wala ñu investir suñu bopp déposer suñuy list demal suñ bopp te bu ñu demee dañuy gagné ndax jiwuñ lax loo xam ne danañu du mooyu eh, parce que lu ñu wax ak ñoom ay dëgg lay doon. yow ndaw nga am nañu yaakaar ne dafa am ñu la yebal dafa am ay responsable tamit yi nekk sa ginnaaw euh, ci dañuy jaar ci yow parce que lu ñu sañu la wax yaa koy wax. lay <laughs> tontu ci loolu. bo xam nga ñooñu ñu xamut ñu daan def jëf jooju moom la ñuy utiliser ñu yaakaar ne keneen ku day jëf mais nag euh, Kande tey dinaa la wax ndaw màgg na. Mhm. dootuma nangu yu bari mhm. kilifa laa te exemple laa te bëgg naa ñu bëri di roy ci man. Mhm. li may def te Kaolack ñoom taxut yàlla bu ma ko yàlla bu ma ko gañe loolu gisuma ku ma mun a utiliser. gisuma ku ma mun a yebal. gisuma ku tax man li ma santir laay wax ak li ma gëm li ma gëmut du ma tardeel bu ma bu may Ablaye xuma ba tey may wax yow lu ma gëmul du ma taax del d'accord président de la république euh, ñoo ngi wax waxu feewum ay am ñu bëri surtout ñu nekk opposition jàpp nañ ne président Macky moom wax dëgg yàlla fu mu toll nii jeexal na ku mel ni Abdoul mbay nee nañ jëndum président Macky Sall avion bu bees dafay gën di firndeel ne moom ba léegi fas yéenewul bàyyi en tout cas pouvoir bi dafay dem ci beneen troisième mandat Euh, polémique boobu nga xam ne jug na ci avion bi mu jënd ban tontu nga ci am. gis nga lu may ñëwagum naan fin mandat gi nga fin mandat kooku yàlla moo ko man wala peuple bi Macky faluñ ko ci ay këyit dañ ko fal ci ay carte faluñ ko ci ay wax ndax yaakaar naa bu doon wax dong la xëj na am na ñu bëri ñoo xam ne falu woon nañ am na ñoo xam ne campagne woon place de l'Indépendance lañ yemoon. am na ñoo xam ne ne campagne dañoo ne woon lii ak Ablaye Wade wax te bokk mais gi nga fii kenn mooy décider benn institution mooy décider jour ba muy conseil constitutionnel te bu koy yoon wax na ko ko may na ko ko bu ko Macky posé danañ danañ ko campagne danañ ko gagné. Mm-hmm. affaire avion présidentiel bi ñuy coow xëj na waxa neex rek amuntuñ lu ñu wax xamatuñ fu ñu jëm ndax li ñu naroon wax yépp Macky Sall jiitu na ko tëj ko kon nag lan moo des mooy avion ñoom ñii di wax at bu jot ñu changé oto mais Macky Sall avion bi mu changé changé wul ko ci turi Macky Sall c' est l' état du Sénégal te un état dafa war a être fort Macky nekkul heure buy ñëw wala bu bëggee voyager ñu ne nañ seeti avion bi ndax huile bi mot na wala ndax huile bee rotut loolu sax un loolu sa président nekkul ci sécurité déjà avion bu ñu ko doon jënd. avion bi boobu avion bu màgget la. du woon avion bu bees. bu bees deuxième la. Hmm. dawaat na dix ans xay xay sénégalais yi bëgg leen seen bopp nag réew njiit yàllaa koy tànn te ñu ne ab njiitu réew yàlla moo wàññi si as dooleem tuuti jox la ko pour nga jiite ab réew kon nag kooku da nga ko wax a sàmm aar ko. Hmm. sàmm kaaraangeem. parce que tey Macky suba suba ba fi jógee woon keneen ku ñëw mooy utiliser avion bi ñooñu ñii ñëpp. bu fi Macky jógee koo tey ku falu yaay utiliser avion doo jël delloo ji ko bu ñu faloo kay bu fekkee man ne bu ñu faloo nañ jëlaat avion bi jaay ko ndax boobu day fekk bi bees na c'est ça na koy sàmm kii ne moom la ñëpp tey bu daanoo réew mi daanu bu taxawee réew mi taxaw nga bëgg koo seetaan comme un Ablaye Xuma bu nekk Sandaga di tambambaal wala keneen ku nekk fee di tambam non non non non yow yaa ko fal wotal ko fal ko ne amel ñu suñu réew nit nag. boo laa amee dara balaa naan naam ne fa. mais lan mooy tamit euh, lan moo tax mënuñu wax sénégalais yi avion bi fii lañ ko jëndee lii mooy markam mais lii mooy njëgam Omar Gueye dëgg nañ ko nee na prix bi kenn du ko wax genre yu noonu mais loo xam ne da ko jëndal ab réew jënd ko ci alalu ci mémoire ñëpp quand même xanaa warul am na bu gis nga luy gis nga avion boobu luy njëgam luy prix bi un ñëpp xam ne dëgg naa ñii ñu ne cinquante deux milliards. am na ñu naan trois cent huit milliards. Ah, am na ñu loo xam ne bopp du yenu. mais xam na lu bët trois cent huit milliards. trois nit ku ne xam nga nuy ak lii lim lay jaral ak li muy bañ nit ñi ñoo neex ñuy wax rend compte na président mi ngi rend compte ñu mu ko wax a def. mais peuple la war a rendre compte grand. non mais nekkul ne nit nag duñ la jox boo jëndee dàll caax nga ne peuple lii laa jënd loolu amoon nit amu jotam. kon même prix avion ci secret d'état lay bokk. non non mais ab secret d'état ak yeneen ak yeneen détails yi. prix bi rek prix. Euh, déggoo li ma la wax de ñi ko war a xam ak ñi ko war a jëndi ak lu luñ ko mën a jëndee lépp dafa transparent. ki war a xam prix avion lu dul warul nekk kenn ku dul le peuple quand même parce que suñu contribuable lañ jëndee avion bi xanaa. kon xanaa kon moom bu président bu jënd jee big war na koo rendre compte. waaw bu jëndee big. da ko war a rendre compte. <laughs> waaw loolu nag nit ñi da am foofu carnet nit ñi dañu. bu jëndee bi pour réew mi jëndee avion loolu après danañ moom dana ci dana. ko nañ wax quand même bi moom. bu avion bi ñëwee buy def discours di ko wax naka la ko jëndee ak fi mu ko jëlee. ah dina wax prix bi. bu soobee yàlla. Ah, loolu kay noonu discours bés bu ñuy réceptionné avion bi. ba ni mu def yeneen avion yi yëpp Air Sénégal a ngi nii réceptionné na Air Sénégal demoon na ba daanu. Mm, mu ñëw it yëkkati ko. jënd mm. ay avion yu bees te dem na ba naw sous région bi yëpp seen ñëpp di Air Sénégal la ñuy xaar te bu mu koy réceptionné wax na lépp nu mu demee mu leer. train express baa ngi nii réceptionné guñ so leeral ñi ngi leeral affaire yi. avion bés su koy réceptionné bu wàccee fii dana ko leeral. dana leeral lépp lépp dana leer. d' accord ñoo ngi lay ñaanal déjà bonne chance pour sa candidature foofu. ci mairie Kaolack merci beaucoup merci beaucoup. d' lan ngay tëjee. man daal li may tëjee mooy di remercier d' abord le président de la république. ngir tournée bi kii tournée bi muy war a def mooy économique yaakaar naa nit boo tabaxu doo wëri looy tabax doo inauguré ji. liggéey a tax mu koy inauguré liggéey moo tax muy inauguré ndax bu liggéeyutoon Dakar lay tooga Paris wala Dakar euh, euh, Abuja wala Dakar Nations Unies mais bu demee ñetti fan yàlla nekk ko ci biir dëkk bii Sénégal sud. Mm-hmm. di inaugurer ay hôpital kon nag ngàcc njaaraama maa ngi koy gërëm di ko sant ci kaddu yooyu question boobu defe naa technicien bi dina ko andiwaat dama ko xawoon fàtte Sine Saalum nga nekk président mu ngi waajal tournée économique xanaa genre campagne lay defaat encore ci zone boobu non du campagne mbégte bu am population bu leen tabaxalee ab hôpital nit balaa ngaa naam ne fa wér-gi-yaram nga ñëw ñu la koy inauguré am nga droit na tertu ko fii wan wan sa sa mbégte tabaxal la ab yoon yooni ndanda Kaffrine ku gis yoon yi ah yoon yi sidd yooyu yoon yi nu ñu mayoon mu defal la ci tali bu ñuul kukk ko mbégte boobu forcé nga teextu ko. Kédougou ñëpp xamoon nañ ko il est 700 kilomètres de Dakar la. 750 750 kilomètres la nit da daan feebar am problème. lu ne am problème coow léeg ambulance benn fay ne ñaar mu dem ma defalal benn hôpital boo xam ne ne dernière génération lépp di fa ne kon nag bu la koy teg inauguré da ngay sant yàlla. Mm. kon nag président nit boo liggéeyee. da nga war a fësal li ngay liggéey ndegam fii boo noppee nit ñi suul li ngay liggéey indi leneen loo leneen di la ko waxal wala di la ko sosal réew mi dafa yàqu. ba tabax ay hôpital hôpitaux. Mhm. mais hôpitalu Sénégal bari na problème. hôpital Sénégal ban problème. Kolda ñoo ngi ni ba tey ñoo ngi ñaan ay gynécologue mënul fexe ba ñu yóbbul te ñu gynécologue. non am na ñu fa affecté woon. xëy na xaw ma yan. Euh, deuxième la ñuy laajaat rek. waaw yan moo tax ba ñu dëpp. mbir nag il faut. nit ñi il faut ministre de la santé bi loolu moom moo ci wax a jóg. mbir da ngay affecté nit ginnaaw yooyu yaa koy employé yow yaa koy fay ci xaalis compte bu yàbb amul na duma dem fii wala duma dem fa ko affecté demul dàq ko. am na ku mu yóbbante sax Kolda mais dañuy bëgg mu yokk. mu ñu beneen voilà ah dolli na na balaa ñoo dolli na ñu si yeneen hôpital yi ndax am nañ. na yëpp <laughs> am d'abord bu amee bu ñuy dolli ñu dolli. <laughs> merci beaucoup Kara ñoo ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. Euh, di la dig daje beneen yoon. jërëjëf ci beneen entretien fii ci senego point com ñuy profité du nuy waale mbokku internet yi di leen jaajëfal ci taamu bi nga xam ne taamu nañ ko site bii di senego point com